asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu gaa yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay euh, waxtu bi ñuy def vidéo bi nii nag ak yéen du waxtu bi ñu gën a yomb ci waxtu yi ndax ñun ñëpp yëg nañu li nga xam ne moom moo xew euh, ci suñu réew muy encore plus particulièrement suñu xarit suñu frère pap Alé Niang Pape Alé mi ngi ci situation bu critique te defe naa umpul kenn tey ay avocat am ba ñu ñaanee liberté provisoire euh, ki nga xam ne mooy procureur de la république daf ci opposé wu pour bu ñu jox pap Alé Niang li nga xam ne moom mooy liberté provisoire pour mu delluwaat ci njabootam mën a faju faj bu normal parce que Pape Alé Niang tey mooy juróom-benneelu fan nangootul benn traitement nangootul benn traitement boo xam ne ñu ngi ko koy defal nangootu ko Pape Alé nangootul benn traitement tey mooy juróom-benni fan euh, vraiment mu nekk ci situation bu délicat nag euh, foo situation bi daanaka foo ko nat rek raw na foofu foo leen situation wu Pape Alé rek raw na foofu donc euh, dama bëgg pour sénégalais xam ne mbir mi du mbiru photo gis nañu benn photo boo xam ne gars yi jéggal leen ma une minute jéggal ma hello I'm okay Yeah, I sent you the text message. I think you've seen it and the videos. So if you confirm, let me know what you want to do, and then I, I'll do whatever it is that you want me to do. Yeah, the thing is, once they take it apart, they're going to know exactly which small part it is, and then I will let you know. It's not going to be much after that, but they said because of the location is very hard to get to it. That's why they told me that. You would have to you would have to sell me because you hear what they said, right? Whatever you send me is what I'm gonna give them. I guess give them a thousand maybe when they finish. they give you the rest of the bill. It's not going to be anything that they're going to do that you're not going to have a response to. Whatever happened, they're going to send you the actual bill. So it's not going to be anything different. All right. And I'm going to be there every day. So. All right. So that's it. So tell me when you get a chance and we go from there. I'm, I'm doing something and we'll, we'll talk back in a little bit. that's voilà donc euh, gars yi maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax voilà lii nga xam ne moom moo dal Pape Alé te ñun ñëpp ñu koy bàyyi xel dafa bokk rek ci projet délinquant maki Sall Macky Sall dafa nekk ci benn projet te projet mooy moom nee na dafa yaakaar ne li koy xañ pour mu am troisième mandat mooy journaliste yi nga xam ne ànduñoo ak moom ak activiste yi nga xam ne ànduñoo ak moom te liste bi la liste est longue dama leen di liiral rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey ci détention arbitraire u Macky ndax Macky Sall sénégalais yi xëy na ñun ñu bari am na lu ñu xamul ci moom waaye am na aussi ñun ñu bari ñu xam dara ci moom dama leen di limal Abdou Karim Gueye benn nee leen benn Ousmane Diagne ñaar Cheikh Omar Diagne ñett Papito Kara ñeent Amit Dia juróom Mor Gueye juróom benn Assane Dramé juróom ñaar Ibrahima Diédhiou juróom ñett Abdoulaye Ndiaye juróom ñeent Babacar Ndaw fukk Pape Ousmane Seck fukk benn Pape Mamadou Seck fukk ak ñaar Madike Diop fukk ak ñett Abdou Silla fukk ak ñeent Buuna Ba fukk ak juróom Yaya Cissé fukk ak juróom benn Ndey Saasum Ndaw fukk ak juróom ñaar Pape Alé Niang fukk ak juróom ñett Ndongo Diop fukk ak juróom ñeent Fadilou Keita ñaar fukk ak Diop Taïf ñaar fukk benn te maa ngi jot ni message ñu ne ils viennent à peine d'arrêter les activistes Ousmane Sarr donc Sénégal fii la toll euh, man nag comme ni ma leen koy waxee toujours baaxoowu ma wax li nga xam ne moom la nit ñi bëgg a dégg moi je man duma wax political correct je ne parle pas d'une manière politiquement correcte man li may wax mooy sama diggante ak yàlla te di informer juste et gis naa ñuy jël benn photo Pape Alé boo xam ne ñu ngi koy wëndeel benn photo Pape Alé boo xam ne ñu ngi mi ngi circuler ci réseau yi ñoom photo boobu lañu jàppee ali bi ñu ne les sénégalais sont en train de manipuler ñun ñoo yónnee photo Pape Alé Niang boobu xawma pour lan waaye ñoom gëm nañu ne ñun dañu yónnee photo Pape Alé Niang boobu pour informer sénégalais yi ci loo xam ne du dëgg ñun déjà premier et et first and foremost partagé wuñu benn photo Pape Alé Niang man. muy bu bizarre ak bu bizarreul waaye xam naa ne situation Pape Alé Niang tollu na foo xam ne tey foo ko natt ci photo dépassé na ko donte sax photo boobu moom boolewuma ko ci mbir waaye man naa leen garantiral ne soo leen gisoon photo situation Pape Alé Niang fi mu toll nii tey photo bale da ngeen koy jàppee ay caaxaan la situation de Pape Alé Niang critique Pape Alé Niang situation am dafa critique dafa nekk en état d'urgence maanaam bay am ay ay ay ay attaque donc loolu yëpp nit bu ko xamee damay yaakaar ne suñu responsabilité la ñu informer juste et vrai ndax bu ñu sàgganee wala ñu caaxaane affaire u Pape Alé Niang ba dara dal ko on sera tous responsables ndax Pape Alé Niang bi waxtu xeexal Sénégal jote dafa xeexal Sénégal surtout les fronts ci biir réew ak biti réew et il informe toujours juste et vrai Pape Alé Niang du sos Pape Alé Niang du tooñ Pape Alé du partager ay information yu dul dëgg Pape Alé du laal loo xam ne yoonam newu ci te du parparloo ndax bu ñu waxantee dëgg rek moom Macky Sall mii nga xam ne tey mooy njiitu réew mi bokk na ci journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon dalal muy pap aleña te moom Pape Alé tey bu amoon njëg bu nangu woon ñu jënd ko Pape Alé bu nangu woon ñu jënd ko si s'il avait un prix ni kon tey fi ngeen di dégg mu yegg ak Macky Sall nii du fa yegg ak moom ni kon du dem prison ni kon dina def ñi ñenn yenn journalistes yi ngeen di gis ci dëkk bi waa waa Sen TV waa T waa TFM ñenn ci waa Seneweb ak ñenn benn wala ñaari journaliste yu nekk wal Walfadjri dama bëgg ñu xam ne Sénégal on traverse un moment très difficile dans notre démocratie gis naa nag ci ay diversion lañ ñu bëgg a yóbbu mais na tombons pas dans leur piège bu ñu daanu ci seeni ay piège l'heure est grave te leur de la révolution a sonné l'heure de la révolution a sonné bu ñu sàgganee suñu bopp bu ñu nax suñu bopp man façon naa yéene ne ay live sax dootuma cee duggati comme dootuma ci waxati ndax dama yaakaar ne heure bi nekkatul heure wax waaye heure jëf la nekkatul heure wax parce que li ñu war a wax yëpp wax nañ ko ci juróom-ñaari at yi ba ba juróom-ñetti at yi passé li ñu war a wax yëpp wax nañ ko leur de la révolution a sonné cher frères cher patriotes chers compatriotes sénégalais dafa jot ñu jàmmarloo ak Macky Sall balaa muy trop tard Pape Alé Niang est en danger Pape Alenia est en danger. Pape dafa nekk ci ay difficultés yu jafe te ñun ñëpp am nañ ci responsabilité waratuñoo toog seetaan ce n'est plus le moment d'écouter et, et, et rester tranquille chez lui chez eux parce que bu ñu toogee ñu bàyyi Macky Sall fi ñu jëm ak moom dina doy waar trop gaay nañu jël suñu ay matuwaay nañu jël suñu ay matuwaay jël suñu ay responsabilité L'activiste Ousmane Sarr vient d'être arrêté devant la primature pour avoir demandé la libération de Pape Alé Niang. Activiste Ousmane Sarr jàpp nañ ko léegi dafa bokkoon ci euh, nit yu doon laajte pour ñu libérer ki nga xam ne moom mooy journaliste Pape Alé Niang donc kooku tamit beneen jeune bu brave bu amoon kàddu ci suñu république bi moom it jàpp nañ ko arrestation yi ba kañ arrestation yi ba kañ kañ man gëm naa ne sénégalais yi dinañu xeex ak Macky waaye est-ce que docteur après la mort aussi am na njariñ man gëm naa ne sénégalais yi dinañu dem déloger Macky pale man ci sénégalais yu gëm loolu laa bokk gëm naa ne Macky Sall du yeggali mandaam bi man ci sénégalais yooyu ko doon wax démb tey la balaa tey di ñëw ci laa bokk gëm naa ne Macky ne finira pas son mandat mais est-ce que tamit bu ñu toogee xaar ba mu trop tard docteur après la mort est-ce que am na njariñ est-ce que dina am njariñ bu ñu toogee xaar ba Macky Sall rey les journalistes dignes comme Pape les activistes dignes comme Abdou Karim Gueye comme Ousmane Diagne comme Ousmane Sarr mi ñu jàpp comme job Taïf comme Papito Kara comme Ndongo Diop bu ñu toogee xaar ba booba est-ce que bu ñu jàppatee Macky Sall amaana wala ñu rey ko sax amal nañu njariñ parce que Macky Sall rey ko ak xaj yëpp benn la Macky Sall bu dee dafa mel ni xaj bu dee wàññiwul Sénégal dara mais Pape Alé bu jógee ci Sénégal le Sénégal aurait perdu un pionnier donc est-ce que jar na ñuy bàyyi Macky Sall di jël ay bakkan yu mel ni yu Pape Alé Niang wala ay ñoom Ousmane Diagne ak ñeneen ay ñoom Abdou Karim Gueye parce que maki Sall lui tôt ou tard waxoon naa leen ko boo leen fàttale ko daan naa leen jox exemple Samuel do Samuel do maki Sall xam naa ne fi muy mujjee ak yi dañuy jël ngóoraam ngi takk ci buum ba mu dëgër di ko watat ci tali Dakar yi xam naa loolu ça je le sais moom ak waa këram xam naa ne Marème Faye Sall ak Macky ak seeni ay doom fi ñuy mujj ci histoire Sénégal dina ñaaw trop xam naa ko il sera le premier président ki sera pendu en public ndax li mu lebal sénégalais yi te xale yi mer nañu waaye est-ce que tamit toog xaar ba mu trop tard est-ce que am na njariñ est-ce que bu ñu toogee xaar ba Macky Sall jël ay bakkanu nit ñi nga xam ne ñoo gën a important ci suñu république man xam naa ne sénégalais yi dinañ dal ci kaw Macky loolu man awma ci sikki sàkk awma ci ñaari xalaat je sais que les sénégalais face à Macky Sall mais waxtu bi moo jot waxtu julli bu jotee dañ koy julli mënuñoo toog xaar ba waxtu bi passé ñuy dabe wala ñuy fay ay boru julli te sénégalais loolu lañu baaxoo sénégalais li ñu baaxoo mooy dañuy toog suñu kër ba waxtu julli bi jot ba paase ñu julli ne maa ngi fay déedéet yàlla bëggul julli bu ñu julliwul ci waxtoom de la même manière jëflanteeg Macky Sall ci jaamu yàlla la waaye jëflanteeg moom ci waxtu bi mu waree mooy jaamu yàlla bu baax bi il faut fair face je demande aux Sénégalais un soulèvement populaire et immédiat Sénégalais yi na kenn ku ne nelawee xale yi préparez-vous pour un soulèvement populaire et immédiat dañuy woote un soulèvement populaire et immédiat damay woowaat sénégalais yi un soulèvement populaire et immédiat buñ ko deful ci buumu njaam la ñuy nekk est-ce que mën ngaa toog sa kër nga ñëw ñuy violer sa yaay ñuy violer say sœur ñuy violer say doom nga toog ñuy violer sa baay nga toog ñuy violer sa constitution nga toog ñu lay sodomiser nga toog est-ce que loolu bokk na ci ngóor je j'appelle à un soulèvement populaire contre Macky Sall et c'est immédiat nañu bàyyi waxtaan bi te ñu bàyyi négociation yi Macky Sall ñu jëmee ndox amu fa Macky Sall fi ñu jëme ndox amu fa nañu jàpp Macky Sall ak jàpp ay ñu mel ni Moustapha Diakhaté ces personnes doivent être arrêtées et immédiatement pendues publiquement Sénégal heure bi dafa jot nañu bàyyi caaxaan képp kuy dox ci mbedd guddi yi préparel sa bopp képp kuy dox ci mbeddu Dakar préparel sa bopp leur de la résistance à sonné un soulèvement populaire est éminent Macky Sall dañu war a dal dal ci kaw dal ci kawam désobé désobéissance civique sénégalais ak fu waay mën a ne ñu jàkkaarloo ak Macky Sall nañu bàyyi waxtaan nañu bàyyi négocier nañu bàyyi xalaat bu bari bi te ñu dal ci kaw Macky Sall bàyyi leen diversion ay waxu Pape Djibril Fall ay waxu Bougane Gueye Dany ay waxu diw ay waxu diw Sénégal ñi ànd ak population bi ñun xam nañu leen ñi àndul ak population bi xam nañu leen kenn mënuñoo divertir mais leur de la résistance à sonné Pape Alé Niang waruñoo toog seetaan ko mu ñàkk bakkanam waruñoo toog seetaan Pape Alé Niang Macky Sall jël bakkanam jóg dafa jot jog fépp nag ci Sénégal waxuñu rek Dakar waxuñu rek Kaolack waxuñu rek Bignona waxuñu rek Ziguinchor waxuñu rek Mbacké waxuñu fii waxuñu fële fépp ci Sénégal dañu war a jóg fippu dama ne heure bi dafa jot pour ñu jóg libérer suñu réew bu ñu toog seetaan ba lii jëm ci ñag ba te ca ñag ba am na fa ay kër amu fa kër de ay kër la fa am gars maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen joxaat dig daje suba ci waxtu bi wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.